Assalamu alaikum, bonjour, chers internautes, nous vous saluons. Je réponds au nom de Michel Mbaye Momartala, je suis le directeur général de MTM Immobilier. Aujourd'hui, nous aimerons vous présenter un site, un titre foncier. Pourquoi un titre foncier Parce que la majeure partie de nos clients nous réclament des terrains avec titre foncier. pour lan ñu titre foncier dañuy avons ay terrains yi nga titres fonciers où se trouvent les titres fonciers Madame titres fonciers yi fan lañ ko amee titres fonciers yi ko amee fu ñuy wax euh, kunun 2 fan la kunun 2 nekk kunun 2 maanaam mi ngi ci côté benn côté bi Kër ko passé aussitôt yaa ngi jot kunun 2 boo kunun 2 nga prolonger ci la zone des ñaay foofu la le 2 nekkee te site bi ci am solo site bi il y a benn route bu ngand be xamné moy prolonger prolongé jubali directement ba sédiment bi xam ngeen né sédiment bi mo nekk ci sortie neuf bi kon donc mu doon site be xamné site bu am am solo ben avantage moy dafa dend ak Almadies 2 Almadies 2 ku ne xam nako ndax bâtiment yu muccu ayib yi nga xamné ne mo fa nekk kon mbokk yi daw ci leen ci site bi moy titre foncier individuel ci plan bi di ngeen gis ne bu ngeen xolé ci kaw boo jugee croisement ñag ñew mën nga duggee Kounoune 2 boo côté Bambilor mon nga duggee Kounoune 2 boo automatiquement fi 45 euh, bi di jaar bisu 45 mën nga prolonger dugg ci ci bir site bi site bi nag bientôt ci mois bi incha déjà j'ai déjà borné borné nañ ko terrassé nañ ko def nañ ko lépp bu ngeen xoolee vidéo yi di ngeen ko gis. maintenant di ngeen ma laaj site bi nan lay demee c'est un site à titre foncier vente devant notaire maanaam yow tey jii boo ko doon jënd ci notaire bi ngay dem noonu ñaata lay jaar ça coûte 12 millions 500. 12 millions 500 12 millions 500 yi y avantage en moratoire le avantage bi ci a nekk moratoire dépôt 50 50 est liquidité en 24 mois donc chers internautes c'est un site très accessible qui se trouve vers almadi 2 donc certainement vous allez me demander les modes de paiement je vous dis que c'est un euh, en moratoire. Donc, vous pouvez déposer un compte de 50%, le reste payé en 24 mois vente devant notaire, avec ouverture de dossier au niveau de MTM Immobilier. Voilà pour l'essentiel le site qu'on voulait vous présenter avec titre foncier. Parce que moi, yi ñu de dañuy wax terrain suma amé titre foncier mom lay jël kon daw ci leen gaaw ci site bi bu ko defee ngeen avantage di leen nuyu di ziar leen ma